Boisson Jet Set e ak AME ñooy ànd ak yéen seen émission ndekki li ndekki li daal ca dëgg-dëgg mooy émission nandite yi am nga xar am nga xar fu ma koy jële yéen bu ngeen amul xar kon kuy am xar fii jëlal sañ sa Mbàkke jëlal Mbàkke Mbàkke li nga sañ sa nii yëpp nga ne amoo xar damaa redoublé bii daaw la woon ci tabaski bi waaw ah. dama koo rënkoon ba léegi waaw ba dafa sañ la ah. foor la mais ak sañ bu baax bi nga ne amoo xar tudde naa la ko ah, jërëjëf def ci xar <laughs> Sénégal man la bay di bi dew bu bees yaa ngi ci émission ndekki lii ak maam Nicolas jërëjëf aywa mu ngoog jërëjëfati bay di bidéo bu bees 98.5 le choix de la première radio d'information du Sénégal bien bonjour chez vous bienvenue chez nous ndekki émission nandite yi tàmbaleeti bu baax a baax a baax nanu koy defee saa su ne gannaaw bi ñu jógee j'espère que vous en avez bien profité pour bien recharger les batteries afin de bien redémarrer cette nouvelle semaine en beauté euh, semaine bi nga xam ne ca tabaski bi lañu jëm daan ci si siwaat léegi léegi ak seen i soppe Mbacké Sylla ak Maodo Faye Maodo Faye ak Mbacké Sylla yéen a ñoo Sénégal parce qu'on le sait tous Dakar n'est pas le Sénégal wane itam yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ñuy topp ci digital bi euh, puisque ñu ngi ko xam ñun ñëpp ne euh, digital bi YouTube bi ak Facebook bi yéen a ngi fa di ñu suivre jamono jile ñu ngi leen ci sant bu baax di leen ci gërëm ak di amati mbégte bu baax a baax a baax jaa jëfati maak équipe digitale ak équipe technique bi nu àndal ñu ngi leen di nuyooti di leen bëggee teg di leen ziarati bu baax a baax a ba di bu baax euh, di leen nuyu ak di jaajëfal soppe yi ak bëggee di la ziar naan la bismillah salaamaaleykum. Nicolas maa ngi lay nuyu di nuyu mbokk yëpp di nuyu saa di nuyu képp ku doon koo xam ne kii jamono bi yaa ngi ñuy déglu. jërëjëfati naka altine bi. waaw tey de la lundi. Mhm. waaw moom la ko tubaab yi tuddee de xanaa. Mhm. noonu wolof yi ñu naan ko altine. Mhm. Eh, ndorte la goo xam ne gën dafa am lu mu dëgmal. mooy alxames ji nu jëm mu war a dëppoo tabaski gi. xam naa semaine bi moom semaine bu bari. raj raj raj loo doon ak buuxanteeg ya ci aju. waaw te ndakaaru fi ñu ne xat na lool moom mm-hmm. waaw dem beeg dëkk bi sax da ci biir dëkk bi sax xat mm-hmm. waxatuma laa nag sama gars yi nga xam ne dañoo bëgg a dem ba bawol mm-hmm. te fas ñu yéenee bëgg a gaaw a dem euh, fokk mu xaw xat ci ñoom <coughs> tabarkàlla euh, Mbacke bismillah waaw fay la nuyoo nuyu nuyu la bu baax a baax euh, nuyu saa njàmbur békki bàyyi gi ñu bàyyi xel ñun ñi nga xam ne dañuy ñibbi ca kaw ga <coughs> ah déet man ca kaw ga laa dëkk di <coughs> waaw kon bàyyi nga bàyyi xel waale sa bopp man na xawma nu may def ba wax rek loo xam ne doo ci teg baat déet déet parce que damaa xam ne man ngay waxal. xam nga Nicolas mën naa bañ a comprendre. waaw loolu dina nga def sa loxo yi. te nii sama mbir la. Ah. ay kii la. <laughs> bokkatu bi ah. ah bi waaw kay ñoo ngi lay fay nuyoo bu baax baax di la <laughs> nuyu di di fay nuyoo ni ko. waaye dindi naa ko. waaw kay di ko nuyu moom itam. jërëjëf di di di bëgg ci teewaat di ko ndokkeel bu baax a baax ci whatsapp bi. Mhm. Eh, <laughs> di yëgal di yëgal soppi yëpp. Nicolas Nicolas am na whatsapp. Eh, loolu information la. Eh. Nicolas am na whatsapp bërki démb lay door a am whatsapp. moom bu whatsapp xewee ba léegi. comme ça ku ma ku ma ciibatu rek ma. dugal ko ci whatsapp bi. wala ne say ciibatu ñoruma safuma voilà man je suis comme ça direct rek. <laughs> maa ngi ci WhatsApp bi léegi. waaw nga la ko wax <laughs> Nicolas am na WhatsApp. am na ku ma yónnee démb message nee ma waa koñ bi kaay Nicolas am na WhatsApp. bi ma gisee ngay statique kay dama. Sass yaa ngi may dugal ci WhatsApp bi. yaa ngi may xool man kay man kay dafa wax jaaxal. ndax man nga ko wax ni sax du ko gëm. <laughs> waaw man de loolu man de. <laughs> xamul naqaree gëm la man bi koy xalaat barki démb la far nga am. Mm. damaa toog di xalaat ba mu yàgg ma ne Nicolas ni mu def ba WhatsApp ba mu amee ba léegi ko. te man fi mu ne. non non non ko moo ko tey. non non bu connexion mm. mm. ne. asamaan si day bëgg sa bopp maanaam tàmm googu mu nekkoon drogue ci ñun ak ni mu nekkee suñ kilifa ko maîtriser woon ba nga xam ne da nga maanaam noo doon dunde noonu sans whatsapp anticonformiste ñëpp bëgg bëgguma léegi nag laaj ma lu neex lu neex maa dugg ci whatsapp bi <laughs> li sama ñees bi nee ma yow tonto nga bàyyi ba ñëpp di génn whatsapp. <laughs> wax na dëgg de. nga bàyyi ba ñëpp di génn whatsapp ngay dugg whatsapp. parce parce que fekk na fekk nañu bari di bàyyi whatsapp nga gënoon na am kii. waaw waaw ñun dañoo amoon groupe whatsapp boo xamante ne daa mel ne rajo. admin am bureau. Eh, ñuy réunion Nicolas xoolal di def ay kii di dugal di génne jamono yooyu whatsapp sànq na suñu dund yëpp laa la wax. quand même <laughs> nga bi ko. diw liirul sama audio. déet waay diw nuyu maag. Eh, ndax mu kurwaa mu kurwaa bu ruus ak <laughs> bi man lay waxal nit ñi xuloo nañ ci ba bàyyi ngay doon. yow loolu dundoo ko de ci whatsapp non yooyu du man de du ma ko dund nag ku ma ko bëgg a dund loolu ma lànk. quand même man naa bokk ci groupe nag waaye ba ma bëggee woo ci terrain boobu. Ah. ban groupe nga bokkoon yow. loolu <laughs> <laughs> nag Sénégal gépp xam nañu ne Mbacke Sylla moom ay topp. Ah. léegi nag gis nga tey tudduma ko taasuma ko moom moo <laughs> topp. yàlla baax na ay groupe am topp tuuma ko. yàlla baax na damaa jot message bari ñu naan nag ma nuyul Nicolas mu baax mi ak yambu man leen nag yambu gi Maodo sama kilifa la bàyyi leen li ngeen koy wax. déet déet yow kenn kilifa yow kilifa kenn dees na ko yambu nee naa leen am na benn waaye bu ne ma da koy tuddee mbóot <laughs> mbóot yàlla yàlla baax na fa da ngaa sopp xam mbóot lay dugg ci kër mbóot waaye dañ koy daw eh. te moom dóor daal rek mbóot tàpp dañ koy tàpp yàlla baax na ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen sant ak di leen gërëm Fama Thioune eh, eh, maa ngi maa ngi maa ngi gis bagage yi ñu ngi lay ziyaare bu baax a baax Ñaatamba borom xombol ah fier de son xombol natal on est fier de toi Ñaatamba soxna Binta Diallo ah ca RFM ak ñoom ñaa kii ci soxna Naata Mbaye ak ñoom ñoom soxna Awa Mbaye ak ñoom Dieynaba Seydou Ba ah sama jigéen yu baax yooyu maa ngi leen di ziare bu baax a baax a baax ah, euh, di leen sant di leen gërëm ci cofeel bi ak saa su ne message d'encouragement yi n'est-ce pas Ngone Ngom eh, maa ngi lay xalaat yooyu itam bu baax a baax a baax di leen bàyyi xel n'est-ce pas jaa ngeen jëf ndekki li émission nandite yi tàmbaleeti fas a jëm ak yéen midi parce que les goûts et les couleurs ne vous avez fait le bon choix n'est-ce pas ñu nga jëm ci tabaski ci semaine bile euh, euh, ci la ñoo dikk léegi léegi nii mais am na loo xam ne bëggoon naa ci dikk euh, rapidement mooy message u ma sec bi mu yónnee sunu maam xaar mbay ma jaage également bara ma koy fàtte mas mass très beau message bu nga xam ne jagleel na ko ñi nga xam ne ñoo filmer sunu maam ji xaar mbay ma jaage ci situation bu compliqué ba pare di ko wane ci réseaux sociaux yi maam xaar sax yëgul woon ba nu koy filmer moo tax Mar Seck la mu def noonu la bind ne nañuy bàyyi xel ak di protéger suñu ay maam ah du dëgg du yoon aussi euh, ku feebar magum jëm nga koy filmer ñu koy teg ci réseau yi naan kii ba ñu naan dañ koy jàppaleek yooyu bu nu soxlaa eh, ndimbal ak jàppal xam nañ fu nu war a jaar hmm, ci kilifa yi nekk ci réew mi ngir dimbali suñu maam jooju nga xam ne se une icône ah ci wàllu euh, aar ci Afrique donc euh, beneen yoon nañ ciy bàyyi xel parce que mhm. suñu ay maam foog ñu leen di protéger moo tax j'ai beaucoup aimé cette contribution de Masseck qui interpelle euh, euh, les les de Khar Mbaye Madiaga mais au-delà même euh, toutes ces personnes yi am maam ne nañuy protéger suñu ay maam du dëgg du yoon sa maam feebar nga fekk ci fi mu feebaree mu nekk ci situation bu compliquée doy waar nga koy filmer di ko wane ci réseaux sociaux yi c'est pas moom koy da nga naan sax képp ku feebar rek ñu filmer baaxul. Mm. ndax ndax ki tëdd feebar moom situation bi muy dundu yow mi nekk ci wér-gu-yaram yow bokku fu ngeen ne mm-hmm. ndax moom fi mu toog mënalul boppam dara mi ngi yëg loo xam ne yëgoo ko mi ngi yëgu métit te maladie dafa metti metti boo xam ne gi bu la dalul mhm. xanaa xamoon ne bala ngaa xam njariñu wér nga feebar waaw boo feebaree ba génn ci feebar bi ngay xam nag lan mooy njariñu wér mhm. léegi nag kii ba ñëw di di la filmer mhm. defu lu dul siiwal la pour ñu pour ñu dimbali la ñaar mi ngi def te mi ngi fi mi ngi siiwal sa tawat ndax man yëgu moo ne daa feebar keneen dana ko yëg keneen dana ko yëg te mën naa am sax am nañu ko yëg te duñ ci def dara maanaam yi ngeen doon wax léegi nii ci mën a def dara mënoon nañ ko yëg kese ñu def ci dara. Mm-hmm. waaw ñu def ko benn groupe bu restreindre noonu ñu mm-hmm. restreindre ko mu mm-hmm. parce que li nga doon wax ci WhatsApp yi léegi léeg-léeg seytaane da cee laxasu. seytaane dafa laxasu ci portable yi bari ci doole lool. da nga gis mar deytaal yàgg nañ ko wax fii. accident am am ñu tëdd fi suuf daanu faatu ñu leen di filmer loolu nag yaakaar naa ni lu ñu war a taxaw la. <coughs> lu ñu war jar na sax wote ab loi boo xam ne bii ku defati lu mel noonu la fu ko nit ñi fekk mhm. ñu jagat-jagatee la jàpp la yóbbu la ci kaso bi wala seet nañu def mhm. am na solo jërëjëfati oustaz Maodo Faye kon Mbacke loolu ñu bàyyi maam nañ leen gën a protéger te Maodo wax na lu am solo mhm. déjà que ku feebar rek en temps normal waruñu la filmer waxatuma laak nag muy ah, ay magum jëm xam nga xam nga ku feebar nekk ci kër même ñi ko daan seet si sax du ñëpp a koy gis nit dana ñëw ci am malade ko seet si ñu ne ko day nelaw mhm. wala dafa jàpp wala docteur bi da koo defal garab te fekk yàlla xam na ne defu ko mhm. mais dañoo jàpp ne exposé ko ku ñëw gis ko mm. ah, lool dafa am leneen ab sac buy sàggeeku la te nit euh, dafa amut ak ku mel ne maam xaar mbay mii nga xamante ne nit ñi dañ koo bëgg lool mm-hmm. mu kawee lool ci nit ñi yaakaar naa ku ko gis te gis ko ci anam goo xam ne anamu tawat la mm-hmm. sa xol na cee yëngu waaye du ñëpp ñoo ko war a gisee noonu ndax am na benn mit boo xam ne dañ koy bàyyee nit nit ñi garder ko ci moom mm-hmm. léegi nag réseaux sociaux moo ñu dabe noonu waaye lu ci man di xew ñu ñaanal ko borom bi mu wéeral ko ñi ko mën a jàppale itam ñu jàppale ko ndax am na ñoo xam ne kenn waru leen a laajale noonu ndax seenub sac ak seen dayoo ak li ñu def ci réew mi mm-hmm. maanaam dafa dafa róomaate ak loolu mm-hmm. maanaam loolu sollicité ñi ñu war a sollicité mm-hmm. waxtaan ak ñoom ñu jàppale ko loolu mooy li nga xam ne moo gën a sage te loolu dafa mat di sàmmal nit n'est-ce pas jërëjëf Mbacké les autorités sont donc interpellées euh, quand je euh, de la culture et du patrimoine moom xam naa ne euh, mbir yi moom da ciy faral di taxaw ah, kon ñu ngi koy interpeller de ah. même que autorité yëpp yi ngànk culture comme ko waxee xaar may africaine waane icône la itam ci aar ci boppam ci Afrique kon euh, sunu maam ji bu nekkee ci euh, tawat aussi ñun ñëpp dañ ciy jàpp bu baax a baax te encore une fois ñu éviter di filmer yenn yeeg di ko photo di ko def ci réseaux sociaux yi mm-hmm. euh, du noonu n'est-ce pas jërë ngeen jëf 11h17 minutes dama bëggoon ñu jugee dakaar mm-hmm. dem ba Arabie Saoudite ah ah oui xam nga fii nag mooy ndekki li euh, Alioune Barara Socé bu dee euh, oustaz Alioune Sall pare na foofu parce que nag aju màkk gi dafa. dafa hmm? door euh, door na. Hmm. def naa démb la ñu door wala tey. non tey tey mooy yow mu yow mu tarwiya. Hmm. di tolloo juróom-ñetti fan ci weer wi ci ñoom. mooy bis bi nga xam ne ci la. ku jaaj yëpp di bàyyi koo màkk dem ci àll ba nag dem mun na mhm. tey mun na la ñuy yendu bu subaa la ñu war yendu ji arafa suba nag mooy bis bi nga xam ne ku demul arafa amoo aj kon aj gi door na Nicolas ah, kon aj gi door na <laughs> gannaaw aj gi door na ñu dem fekki oustaz Alioune Sall euh, mu senegal oustaz Alioune Sall mu Afrique mu wax ñu aj gi na mu dooree foofu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh maa ngi leen di nuyu di leen ziar yéen waa Ndékli yëpp ñi koy def ak ñi déglu fab nuyoo bi teg ci loxol Nicolas mu séddale moo ko diggante sëñ Mbàkke ak Xaaj malik di leen xamal ne lu ñuy sori sori ñoo ngi ànd ak yéen jataay bi di ko rafetlu di leen ñaanal barke fii ñu nekk yéen ñu ñëwagul yàlla ngeen ñëw ñu ñëwoon yàlla dellu si yan yàlla boole nu sàmm sàmm leen aar nu aar leen mu ngi ñëw yàlla ñu fekk buy dem yàlla ñu fi bàyyi ñu ngi jégalu nag ci dafa xat ndax wax naa suñu mbàkke yi nu tënk lool moo tax ñu defee ko nii nekkoon dañ ko bëggoon def benn vidéo boo xam ne bii macha allah da ngeen ci jot nu jot ci ngeen jëriñ ñu jariñu ci yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam jërëjëfati euh, yaa oustaz Alioune Sall euh, nekk ca màkk jamono ji Mbacke ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm aussi ci pragmatisme bi mm. par rapport ak suñu jokkoo ak oustaz Alioune Sall waaw waaw ñoo ko bokk te ci liggéey bi la bokk mm. olof ay wax ne ñoom sëñ Maodo ñuy wax waxi olof sax ñooy wax ne lu defu waxu te lu ay di njàmbat mm. euh, jamono ju nekk daa am lu ñu koy waxtaani fi mu nekk nii sénégalais yi ñu bare baree bari ñu ngi bàyyi xel ña ca màkka ndax suñu jur ya fa dem ak xarit yeeg am di jàmm yi ñoom ñii nag ñu bokk ci ñi nga xam ne dañuy taxaw ji ñi nga xam ne ñoo aji xam nga weer wi Nicolas fan yi day fan yu am xéewal mm. ndax bu fekkee ñi ngi Sénégal di di wax waxu tabaski mm-hmm. ñi ngi waxtaane lu jëm ci wàllu aj ñi ngi waxtaane yi ci aju loolu li mu ëmb dafa bari mm-hmm. moo tax message yu mel nii itam indi xam naa yaa ngi ñu ciy jaajëfal waaye nit ñoo la ciy jaajëfal mm-hmm. parce que ab émission dafa dafa dafa soxla am ay ñamatoof maanaam ay ay daal euh, waaye émission Maodo bi xam nga ba mu ko dàmbalee ba léegi <laughs> wenn ratalu rek la koy def tàj muy wax ngay nga bàyyi ko ba mu jeexal rek tàggoo def bande annonce daan ne bu dimanche ma mais ni nga def nii chaque semaine nga dugg dugg mu bees dugal ci. sas on ne répond pas la pas répondre a la provocation. amul amul amul amul réponse Maodo Maodo noppeewul nii bu amee tontu tontu. man kay am naa tontu dama laa tontu. dama laa tontu léegi man dama laa tontu léegi oustaz. tontu laa ko euh, def Mbacke jërëjëfati encore une dégg nañ oustaz Alioune ba mu ñëwee ci kër <laughs> fi nekk nun ñaar rek. jërëjëf dégg dégg nañ oustaz Alioune Sall en direct ca euh, kon aj euh, aj gi doorati na. waaw waaw Mbacke daanaka Mbacke wax na wax na tënk na aj gi yëpp ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo wax ne alxajju arafa hmm. fi mu toll nii lépp loo mën a def ci màkk te demoo arafa aj yàqu na mm-hmm. am na ci yoo xam ne mën nañ koo corriger maanaam mën nañ koo wutal ay wëdd yi ak yu demee noonu mm-hmm. waaye am na ci yoo xam ne nag moom bu mel na arafa bii moom boo fa taxawul daanaka sa aj màkka moom complètement lay daal di yàqu euh, kon nag aj gi daanaka ni ko Mbàkke waxee mi ngi door a tàmbali bu ñu fa jógee nag daañuy daal di dëgmal si nag mm. dam fanaa dañuy dem Musdalifa mm. ak yooyu yëpp ya ci bu fekkente ne juumuma mm-hmm. ba ni demee dem ci ci ci ah, wër gu gi waaw waaw noonu la dañuy dem Arafa bu ñu fa jógee dem Musdalifa waaw très bien après nag ci bis bu mujj bi nag ci la ñuy ñëw mm. mooy maanaam xam na alarba ci ñoom mm-hmm. ñu daal def seen tabaski foofu nag danañ fa wër kaaba ga nag ah. euh, danañ fokk ñu wër kaaba gi tam ci te wër googu mën di ñàkk tawaaful ifaada tawaaful ifaada boobu moom fokk ala kulli alin man man moom moom mhm. yoo xam ne mooy fara mooy ci farate la maanaam lu mel gi ngay armal bu mhm. ne ñëw nga fële ca biiru ba jël sa armal ak yooyu kooku bokk nag benn la ci farate yi mhm. daw gi ngay daw safa ak marwa kooku benn la ci farate yi tawaaful ifaada bii ci la bokk ak aj ak arafa ñeent yi moom mooy les quatre points fondamentaux yi nga xam ne nit ki àla kulli alin bu demee màkka daf ko war a def Euh, Serigne si la macha allah ah, jërë ngeen jëf euh, kilifa yi mm, mm, ñu ci li ñu yëngatu di ñu mm. yónnee message d'encouragement et de félicitation euh, ci liggéey bi ñu nekkee ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ñu nekkee ci métier boo xam ne kàngam yi dañu lay suivre ak di la encourager saa su ne ak di la féliciter sant yàlla rawatina bi nga xamee ne war nañ ñoo décorer fii ak le 15 juillet. xam naa cérémonie boobee du ñàkk daan leen ci invité maak ñi ma àndal ndax dañ noo war a décorer décoration bu mag génération ñun ñëpp ah. Euh, daa leen indil euh, oustaz euh, Maodo Faye ak seriñ Mbacké si la ci boobee. décoration yàq ko yëpp. <laughs> yow nag Nicolas da ngaa yow. xam nga yow da ngay wax lu baax ba ca fin ba yàqu bàyyi ba soirée de gala ba rek. yow xanaa xamoon ne ah, bàyyi ba soirée de gala nga ci dugal nga ci waroon tuuti ko. waaw soirée de gala la. Ah, soirée de loolu gala loolu ah. yow ay kilifa Afrique ñoo fiy teew. affaire à affaire de gala moom loolu. <laughs> yow ku lan bokkoo yow fii la bokkoo. Maodo foofu mu sedd léegi maa ngi annoncé mbokk yi ne également beneen surprise bu ma leen dencal euh, na xam ngeen ne activité politique yeeg information yi jëm ci politique dafa nar a tar euh, weer yi di ñëw euh, Momar Jong mu mag bi journaliste analyste politique bu mag bi ngeen ràññee moom itam intégré intégré naa ko dugal nañu ko ci ndekki li désormais il est consultant ci émission bile euh, chaque semaine daa ngeen ko am benn yoon ci émission bile te am na lu bari loo xam ne dinañ ko liggéey euh, ci rajo bile ci wàllu information jëm ci politique bi ak élection yi nar a ñëw nga xam ne lu bëri dencal nañ leen ko ci wàllu surprise site d'information bi nga xam ne itam moom la jiite daanu am lu bëri loo xam ne daan ko jottali à travers ndekki li kon nag loolu information la ndax auditeurs yi euh, ak nandite yàgg nañ laaj Momar Diong mu mag bii lee nga xam ne il est très suivi machallah c'est l'un des meilleurs sinon le meilleur journaliste analyste politique du Sénégal monsieur Momar Diong qui intègre Ndekili l'équipe euh, toutes les semaines vous l'aurez désormais puisque ñu ngi jëm ci élection yu euh, yu compliqué yu doy waar justement <laughs> daan ci ñëw léegi léegi xam naa ne euh, interview ba ma nar a def ak président Macky Sall dama waxoon au départ dama ñu ciy yóbbu Maodo Faye ak Mbacké Sylla finalement communication bi wër président nem benn nit laa mën a àndal étant donné que léegi jël naa Momar Jong ba damay ànd ak Momar Jong ah bu ko defee parce que mënuma déet mënuma dem euh, mënuma yóbbu Maodo bàyyi Mbacke mënuma yóbbu Mbacke bàyyi Maodo woon ah, rek <laughs> boo bàyyi woon man mag mag Momar Jong garawul quand même mais Mbacke mii nga ci dugal nga Mbacke Mbacke ci ma ne léegi yéen ñaar ñëpp ah coow du jib léegi yàqal léegi nag yàqal nga ma sama dem yow yow yaa ma doo dem du dem <laughs> demoo demuma. Ah. waaw waaw léegi tam am na lu ci toppoon de. loo hmm. dem du ma dem tëb yu du dem. <laughs> am na am na lu ci topp nag. <laughs> loo xam ne daa waxut ci rajo. déedéet <laughs> man de xam man de damaa xamul lu ci topp déedéet. Hmm. booba maa ngi door dégg. Euh, waa ji baykat bi. moom la moom la moom la benn soxna aw bëyam ruural ko. Uh-huh. mu jàpp bëy wi nag. xam Nicolas xam nga luy ruur. ruur mooy. <laughs> booy waxee wolof da nga wax wolof yu yem. waaw non waxal expliquer rek. mooy nga yore sag jur ñu tàbbi ci toolu jàmbur boo xam ne bi gerteeg yëpp nga fa ñu lekk. ok loolu léegi nag ba mu ko ruuralee léegi léegi. léegi nag daa yor tool bi di bay. waaw léegi eh, da koy xam nga man damay am sama ay TikTok ak Snapchat yëpp dama koy dagg. léegi nag baykat bi am Maodo Faye la. voilà ah déet daa yor daa yor toolam sëñ Maodo sëñ Yembu Faye daa yor ab toolam léegi nag <laughs> léegi nag euh, borom bëy wi soxna si bëy wi daal di koy ruural ci tool bi Maodo jàpp bëy wi bi mu ñëwee nag jël bëy wi nag ndaw si ñëw di jël si bëyam mm, ba mu bëggee jël siw bayam nag ca la mm. ko doon woyal woy woowee nag moom waa ji mm. parce que da ko bëgg laaj alamaan mm-hmm. te ndaw si yorul xaalis bu mu ko jox mu ne ko doo dem du ma dem te bay wi du dem dégg ñu ne ah, mu ne ko jigéen li muy fayam ruur soriwu ko man it li may fayoom ruur soriwu ma non <laughs> kër Sula dafa <laughs> desoon nag. saa sa damaa xam damaa xam yi mu wax nii wax da ngaa xam wooy. maa ko door dégg man maa ko door jërëjëf jërëjëf man nga koo man nga koo décortiquer ah déet xam naa li nga wax koy moom benn yoon rek lees koy wax te wàcc léegi léegi jërë ngeen jëf merci Mbacke ci euh, anek anecdote bu xaw ma anecdote la xaw ma kii la moom kay anek lépp la jërëjëf euh, Mbacke si la dirait une fois n'est pas coutume la une de Sud Quotidien de ce lundi 26 juin 2023 validation des conclusions du dialogue national Macky s'engage ainsi titre <clears throat>

Diouf, qui était l'invité de la grande émission Objection ce dimanche, dit ceci, euh, et ou du moins parle d'un engagement ou d'un arrangement entre amis. Voilà noonu la ko Sud Quotidien waxee muy Abdourahmane Diouf mu ne. lii lay di conclusion dialogue national ay maanaam euh, xaritoo la daal yu ñu yu ñu déggoo ci ay point daal maanaam moom moo nekkoon ganu euh, monsieur Baye Oumar Gueye démb ci émission bu mag boobee di ñëw après ndekki li di objection ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm wane itam na ci mercato des Lions Koulibaly et Mendy en Arabie Saoudite, Nicolas Jackson chez les Bleus à Chelsea. Évidemment, je vous l'annonçais, je vous annonçais la couleur. Nicolas Jackson moo nar a def feu de tout bois cette année et l'année à venir, les saisons à venir ngeen jàpp ko gannaaw gars yi ñu ngi dem retraite di dem mhm. Arabie Saoudite. Mhm. Euh, léegi nag ñii boy xew léegi ñooy ñiy dem rejoindre ay Chelsea ak équipe yu mag yooyu n'est-ce pas. donc bonne chance et plein succès à Nicolas Jackson ainsi qu'à nos joueurs qui sont en train de euh, national bi jeex na. Euh, président Macky Sall jox nañ ko conclusion yi euh, repoussé waat na lii jëm ci wax yi troisième mandat ba after tabaski waaw euh, xam nga walla vingt cinq sax waxoon na ne dana wax far nag léegi ñu dàqu moom nag moom ci làmmiñu boppam mu ne bu ñu tabaskee ba noppi dinaa wax te dina wax tamit ci wàllu li nga xam ne moo di troisième mandat bi xam nga am njiitu réew moom président de la république am na sañ-sañu mu waxtaan ak ak askanam ci lépp loo xam ne li neex na ko wala bëgg na Sénégal gépp déglu ko mu nekk lu officiel loolu c'est tout à fait normal waaye nag man li ma jàngat bi ma ci am mooy dafa wër euh, président Macky Sall dafa waru woon a waxtaan ak askan wi di fa tudd troisième mandat. Hmm. parce que dafa maanaam wër ta nekk ndax c'était une question boo xam ne ça a été déjà réglé depuis 2016. léegi nag bu ñëwaatee di ci waxaat ci affaire troisième mandat kon dafa mel ne réew mi dafay delluwaat ginnaaw. ndax lii dañ koo xeexoon 2011 ba ay bakkan ñàkk rot ci fukki nit ak benn faatu ci ay jamono ñëw ñu xeex ko moom mii mii mii naan dama fii tuddaat mandat moom ci làmmiñu boppam moo ne woon yii nañ ko bàyyi parce que problème mu mandat yi réglé naa ko bu ma ci kenn tuddati bu ma ci kii. Mm. parce que man bu ma falaatee sax 2019 su ma parelee pare naa ci bu ma kenn tudd ci problème mu mandat. Mm. kon beneen ba ci tegu itam moom ci boppam mu dem ba méngale ko bi fi Ablaye Wade nekkee ak jullit ayit ci ci kabar ya dégg ngeen ni ko président Macky Sall waxe woon bii juróomi kabar la bee ci des juróom-ñaari kabar la hmm. beneen bi ci tegu tamit de nombre d'années on parle hmm. moom ci boppam mu ne kon coow li jeex na kon nag bu jamono waaw nul nul mooy non plus gi nga ci fàtte waaw nul ne peut faire plus de waaw waaw waaw d'accord waaw nul ne peut faire plus de tàngam d'accord c'est vrai léegi loolu bi nga xamee ne am na ba pare hmm. toogaat lu mat nangami at di dikkaat naan mandat lañ fi waxaatee dama ne loolu réew muy dox. Hmm. wërta doxee noonu. donte mën nañ dem parce que finalement euh, ñëpp loolu la ñu wax conseil constitutionnel la xaar donc mën nañ dem conseil constitutionnel ne mën na. waa loolu bu amee rek moo tax nga xam ni kon réew mi justice bi war nañ koo xoolaat parce que conseil constitutionnel tamit xanaa ñoom tamit am na benn moral bu nekk ci ñoom ndax ñoom ay sage la leen tuddee. ay mag lañu. yoo xam ni wàllu yoon dañ koo xam ne constitutionnel deful woon lu ni mel ak euh, jamono ah, loolu la moo tax may moo tax may def rapprochement bi nii su fekkente ne bu fekk xaw ma nag xam nga président Macky Sall tamit fi mu toll nii kenn wëragul kenn xamagul lu muy wax nag bu coow li coow li même bu fekkente ne dafa ne dafay nekk candidat par par exemple mu dem conseil constitutionnel validé ko man xamu man réew lañ nekk mais xamatuma kon ban réew lañ nekk parce que tamit loo xam ne lii ñoom ci seen bopp ñoom ñoo ñuy wax ci wàllu yoon ñoo dem ba mu yàgg ñu ne tënk nañ ko fas nañ ko bu ko fi kenn tuddati hmm. l'actuel chef de l'État wax ci ba ne moom loolu du ko def hmm. ba noppi yemu ci dem mu bind ko hmm. xam nga président dafa am ñaari affaire mu def dafa dafa utiliser le verbe utiliser l'écrit écriture la def bind ba noppi wax léegi nag pourquoi ñun ñu retourner waat en arrière di demaat bay rek bay bay bay régler waat cette question là. Mhm. cela veut dire quoi cela veut dire que nous sommes pas dans un pays normal. n'est-ce pas jërëjëf oustaz Maodo Faye ñàkkul euh, question bi la naa ko laaj euh, fi ak euh, tabaski bi weesu. Mhm. laata um, président Macky Sall di exprimer wu. ki nga xam ne moo rejoindre équipe bu ndekki li ma ko fàttali ko muy consultant di monsieur Momar Diong journaliste analyste politique à partir de la semaine prochaine daa ngeen ko am affaire à suivre. Mhm. kon wax yi troisième mandat de mel ni. président day wax day mel ne li ñëpp di xaar mu wax ko. Euh, yaakaar naa li ci gën a rëy point bi ci gën a rëy tey doon benn képp mooy euh, problème mu ndax dana nekk candidat wala du nekk candidat. Mm-hmm. moom ci boppam sax bi mu ko junjee ba ne danaa ci wax dafa mel ne euh, dañoo nit ñi dañoo yëg ne ñëpp dañu xaar kañ la ci war a wax ndax da ciy far wax tey. Mm-hmm. mu ne moment bi jot na waaye nag du tey def na. Mm-hmm. moo tax euh, li nga ci li nga ciy déggee lu bari la xam nga dañ ko doon wax fii à chaque fois sëñ Maodo ne président wax na ci ba noppi. Mm-hmm. waaye boo seetloo ñetti at yi ñu génn yëpp. benn débat lañ am ci réew mi mooy candidature Macky ndax Macky daa nekk candidat du nekk candidat. maanaam jubbu woowu nekk suñ kanam. Euh, te mënuñoo fexe ba euh, ba taqali koo ak moom. mel ne jafe la boo xam ne. dees na ko ci xaar ngir mu wax léegi nag ñaar moo am bu waxee ba noppi noo xamante ne politiciens yi man nañ koo jàngate noonu hmm. ak noo xamante ne askan wi ci boppam ñoo ciy jàngee maanaam kaddu maanaam kilifa goo xam ne toog na wax ndax man damaa jàpp ne président même bu waxu doon ci àdduna bi ne du ma def euh, beneen mandat hmm. bindu ko ci livre doy na sëkk rek ñu jàpp ne wareesu koo def que ne maître Ablaye Wade ba mu ko bëggee def mm. dañoo taxawoon ne doo ko fi def bañ dem ca conseil constitutionnel mm-hmm. ñu dellu si waat def ab référendum 2016 boo xamante ne li nekkoon solo si référendum ba mooy fexe ba ne woon kenn dootu fi toogati lu ëpp ñetti mandat mm-hmm. lu ëpp ñaari mandat mm-hmm. maanaam dañuy régler problème boobu mu jeex bonne fois pour tous nañ ko boole ci point yi euh, maanaam ñu wate ko buñu demee ba loolu léerut ba nëga war nañoo posé ñaari question ndax ñun suñu suñu luwaay daa dëgërut dëgëraay goo xamante ni lu ñu wax mën nañ caa génnaat luwaa bi day taaweeku wala kàddu moo amatul solo lool loolu mooy njàngat mi nga xam nit mën na koo jàngate noonu hmm. léegi li ci des nag mooy euh, bu ñu waxee ne problème réew mi lu ci am ci wàllu yoon lañ koy delloo hmm. ñu ne conseil constitutionnel lañ koy delloo askan wi ñoom ñooy xool ndax woo wóolu nañ conseil constitutionnel ba nga xam ne bu fa de bu ñu ko fa delloo dana ne ah lii kat mooy jafe-jafe ba ñu fi indi woon 2012 hmm. ma gisoon ne dañ koo waroon a jàllale ma jàllale ko waaye askan wi taxawoon nañ ci régler ko ba mu indi woon ab projet de loi wala boog ab constitution boo xam ne wate waatoon nañ ko wax ne du fi amee wala déet kanam waaye nag euh, dañuy xaar ba président walis ba xam bu waxee moom lan lay wax ñi ngi xalaat ne moom xam na ni réew mi bindoo xam na situation bi dëgg-dëgg man yërëm naa ko hmm. te itam war naa yërëm boppam bëgg lu ko noppal bu boobaa am na foo xam ne fa lañ koy fàkkal foofu lañ koy xaar merci Mbacké mhm. après euh, oustaz Maodo Faye euh, président day joxe impression ne euh, dafa buggoon am nit yi un peu à l'usure parce qu'à force de on l'a tellement répété kañ ngay wax kañ ngay wax kañ ngay wax e à chaque fois il a tellement repoussé. waaw est-ce que finalement jëlee décision wax ne dafay présenter au programme troisième mandat du fekk ne justement nit yi xàddi nañ tàyyi nañ ci waxu troisième mandat dañuy bàyyi mu sedd. xam nga xam nga waxoon naa ko fii xam nga président Macky Sall il est très intelligent <laughs> moom ci politique moom defe naa ni gën ko ko ay dafa ay ci politique euh, président de la république mais xam nga man li ma li ma li ma li ma jàngat parce que wax na ci français ne quoi qu'il en soit dina ko assumer c'est-à-dire que dogal bu mën a jël rek dana ko assumer mm-hmm. léegi nag dogal bi la kenn xamagul fi ñu toll nii gannaaw yàlla mm-hmm. président Macky Sall képp dong cundum mm-hmm. ak yàlla ñoo xam ban dogal la fas yéenee jël mais ñaar yëpp supposons par exemple tey mu ne mu ne du def troisième daanaka da ko da ko feddali war rek waaye waxoon na ko. Mm. par exemple tey tey bu ñu tabaskee ba pare. Mm. président de la république def ne ne du def troisième mandat. Ah. cela veut que il n'a rien il n'a fait que ce qu'il avait déjà dit. il pose aussi un problème. à ses souteneurs son parti. waaw laa jëm mais laa jëm moo tax man la tey président de la république. monsieur Macky Sall bu demee ba. tabaski gi jeex. Hmm. mu ci biir discours mu ne moom du présenté waat. Hmm. cela veut dire que il n'a fait que répéter ce qu'il avait déjà dit. Hmm. et que comment waaw. son parti mais son parti rek dirigé wul Sénégal parce que y a une coalition qui s'appelle Benno Bokk Yaakaar. léegi nag Benno Bokk Yaakaar bu fekkente ne président de la République. ci beneen côté bi dafa wax ne day nekk candidat ñoom ñëpp ñu bàbbeeku topp ko ñoom wane nañ ne kon Sénégal gi yëpp wërngal kàpp président rek daa jàng moo gën a rafet moo gën a amin ñu gis ne moom biñ ko jiitalee mu jiite seen coalition def na résultat yoo xam ne jiitalaat ko yàqu dara waaw léegi waaw defal ndànk waaw léegi jiitalaat ko mënuñu jiital kenn mu def benn résultat non non ah, man ah, naa nekk waaw na mais gis it Maodo il faut ñu nangul leen maanaam dellu ginnaaw ci mbir njabootam mën nañoo gis ne tegaat ko fi mooy li gën ci Sénégal moo gën ci ñoom loolu gis ab sénégalais moo gis loolu loolu benn bokk yaakaar ak APR dañoo bokk non loolu mais duñ ko waxee noonu yow de mënoo politique loolu kay nga wax parce que da maa dog damaa wax ne hmm. nit ki bu fekkente ne dirigé la fukki fukki at yàlla ak ñaar lu mu deful woon mënoo fay teg ay at yu mu ko defaatee. Macky Sall président Macky kenn werantewul ne am na bilan bu positif loolu kenn werantewu ko def na liggéey bu am solo mais dama ne bu fekkente kenn koo xam ne kii mën naa war a def la président Macky doon def loolu mooy wane ne kon mënuñu dara Macky moo mën lépp moo tax ma ne la Oustaz Maodo Faye président Macky ñaari supposition moo fi am de toute façon mu ne du ma c'est pour un troisième mandat. troisième mandat boobu mu ne da koy wàcc dootul présenté wu. indil na jafe-jafe ak i problème ak i mm-hmm. difficulté ñi ànd ak moom. Mm-hmm. parce que ñooñu anticiper wuñu may ma mm-hmm. anticiper wuñu parce que ba léegi ñoom benn candidat rek la ñu am moom rek la gis gisuñu keneen bu boobaa kon boobee coalition yépp ay màbb. waaw ça mais parce euh, waaw waaw allez-y. xam nga xam nga il faut ñu xool li li waral. Benno Bokk Yaakaar am 6 mois des élections moo tax sax am na ñuy rumandaat naan non moo tax boo fi nekkee di tudd Benno Bokk Yaakaar naan léegi Benno Bokk Yaakaar bu fekkoon am nañ giseen woowu man sama xalaat euh, nëga waroon naa fekk kay même buñ coalisé ne dañuy liggéey réew mi ba toll foofu mm. bu doon waajal nañ benn candidat da dégg kenn ne man candidat laa ci élection yi wala mu dem ci baasam dem liggéeyi wala dara baal leen ma sax ak euh, deal boobu noonu ak Idrissa Seck jékki-jékki rek nii à quelques mois des élections Idi rocceeku alors que moo àndoon ak président est-ce que du ci supposition yii nii justement xam nga ci biir Benno Bokk Yaakaar dafa am ay parti yoo xam ne dañoo déclaré ci seen biir parti ne dañuy def candidat mooy parti socialiste mhm. ci biir parti socialiste. mais ba léegi waxaguñu ko. waaw waaw mais am na ci ñu toog ne waaw. waaw foofu laa jëm moo tax ma ne bu ko ñoom jàpp nañ ne parti bi boo koy formé da euh, wut dagan baatu askan pour nekk président. loolu PS muy muy PS. AFP léegi ñu ngi wax ne dañuy am candidat ñoom itamit ah. ba am koo xam ne ki samp nañ voilà xam nga kon léegi ñu ngi ci benn bopp yaakaar a ko Alioune Sarr waxul ne waxul ne AFP ñoo ko def candidat waaw AFP dafa ne candidat la mais AFP soutenir ñu ko sax voilà AFP officiellement en tout cas waaw li nga wax waaw li nga wax ko wax yow li nga ko loo ci non non li wax laay leer ci li ma wax euh, Idi Euh, mburoog soowam ak euh, Macky ñu dem ba mu des di mois élection mhm. idi rocceeku mhm. ah ñëpp ne euh, danoo teg seen deal léegi est-ce que ci supposition yi nii ñu nekk yëpp mhm. mën nañ supposer ne bu président Macky Sall déclaré du noot notre candidat idi na noon roue de secours maanaam kii nga xam ne moo koy rappelé roue bokk non xam nga problème bi fan lañ fan lan mooy njëkk a tas ba pare. mën na nekk de lépp mën na nekk. Hmm. politique waaw dafa naan ne faut rien exclure. en absolument absolument euh, je tout à fait en phase avec toi c'est-à-dire que. Hmm. gis nga président Macky comme comme supposition bi nga wax ni bu fekkonte ne bu fekkee ne nee du nekk candidat. Hmm. balaa kenn am problème APR ñu njëkk am problème. APR ci seen bopp ñoom ñooy njëkk am xiiro parce que ñoom ci seen biir du waaw bu nekkee ne moom du nekk candidat bu waxee candidat la waaw foofu nag accès gu fi nag may bàyyi ba ma yëgale ci biir waaw mais ma bañ ma laaj la ma relancer la ma wax sama xalaat aussi waaw man dama xam nga yow sa xalaat man damaa déglu say xalaat léegi problème bi mooy bu mm-hmm. fekkente ni le chef de l'état nee na du mm-hmm. nekk candidat mm-hmm. balaa kenn am problème APR ñoom dañu am problème ba pare parce que ci biir pam APR ñu wax ko ak ñu bañ ko wax am na ay gegeer am na ay scission kenn ku nekk yaa ngi bëgg a sa mbër am na ñoo xam ne ñu ngi fàkkal seen bopp ci suuf loolu nag parti politique yëpp pratiquement buy màgg problème am ci suuf kon Barthélemy Diaz ci mm. boppam li ko génne woon ci parti socialiste ak ñoom xalifa Sall ñii mm. mooy boo àndeek nit ba fenn fi dangay dem wuti te ba ko te xam ne wut ki ñëpp ko bokk mm-hmm. léegi nag coalition boobu su fekkente ni àndaat nañoo président Macky Sall. Hmm. daan na ko yaa ñu tegaat fekk président Macky Sall nee na comme li Mbacke wax léegi nee na damaa bëgg damay defaat candidat. Hmm. loolu dafay arrangé président Macky hmm. Bokk Yaakaar bi yëpp ñëwee na ko alhamdulilah demaatal 5 ans. ay ca bisimilah loolu moom intérêt APR la ak président Macky Sall. léegi nag bu ko waxee nag léegi ne damay nekkaat candidat. est-ce que ci waa Benno Bokk Yaakaar du am ñoo xam ni daan na ñoom mënuñu supporter troisième mandat bi. nekk ci PS wala wala Macky 2012 wala yu demee noonu ñoom dem seen yoon parce que en ce moment le moment où je parle am na ñoo xam ne ñii ñi ngi bokk ci biir APR waxuñu ko waaye bu ñu soñoon président Macky Sall du def troisième mandat. Hmm, d'accord c'est ça donc affaire bi dafa. merci merci merci oustaz Maodo Faye Mbacke maa ngi lay joxaat léegi. damay fàttali ne rek ñu ngi en direct ci sunu ay euh, euh, euh, réseau synchronisé ak it ci digital bi.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 Jet Set simplement waaw. ay ki nga xam ne tamit dafay jël gazam togg ci ñam bu tàng na ko bërëb dugal ko ci congélateur wala ci frigo ma ngay yàq énergie te kenn du ko dana frigo xanaa xam nga loolu yàq énergie la. yàqanal énergie mooy suqali suñu économie. y a énormément de réactions de sénégalais fépp ci àdduna bi connecté wu ci YouTube beeg Facebook bi am na ñuy prononcé wu ci boobee troisième mandat kii Bassirou Diallo la tudd ne président euh, amul fit euh, pourquoi il ne s'est pas prononcé depuis lors Euh, lan lay ragal donc moom mu ñu bindee depuis Ohio à Columbus en direct la ci chat bu Sud FM seen rajo ngeen mën a indi seen i contribution bëri na sénégalais yoo xam ne dañ ciy waxtaan ci biir chat bi le ci sujet yi ñoo waxtaanee te loolee mooy démocratie merci beaucoup euh, Mbacké kon euh, mbirum troisième mandat boobu mbirum deal ou pas deal Macky Idi Euh, mbirum Benno Bokk Yaakaar ak euh, candidat benn wala multiple et cetera maanaam waxi troisième mandat bi li tax président Macky Sall di xaar boobu ak léegi di ko puus di ko puusaat di ko puusaat euh, indi na ay question damaa yaakaar ne président day wax ni kandidaa lay doon loolu laa yaakaar moo tax ñoom gisuma ci seen biir deal boobu wala plan B boobu loolu nag tegtalewul ne damaa wax ne da koo war a wax wala damaa bëgg mu wax ko waaye démarche am ni ni yëf yi di doxee mm-hmm. buñ ko toppee ba nëgëni te fëyewuñu suñum xel mm-hmm. dañuy jàpp ne léeg-léeg nit day am loo xamante ne mënagu koo wax waaye ku ko waxal mu jël hmm. maanaam président fi mu taxaw ñu ne ko euh, euh, nekkaatal candidat hmm. kenn mën kenn mënta wàññi nu mu toll te ña ko waxoon tàqalewut ak ñoom hmm. tàqalikoo wut ak ñoom te ñi ko waxoon ne ko bu fi nekkaat candidat tàqalikoo koon ak ñoom bërki démb ci dialogue bi bi mu toogee di wax am na ku jóg ca mbooloo ma di ko wax ne ko deuxième quinquennat wala nangam nangam président nii rek la ko def ne ko may ñu ñu àggale mm-hmm. waaye imaginel baat boobu tey boo ko sensé woon def ko contrôle bi mm-hmm. di xaar ak yooyu yow nekkatoo candidat mm-hmm. est-ce que kooka foofa dana nekk place am mu continuer di fa toog wala déet te ñaar yëpp ko ci gimiñ te benn amu fa euh, toog kii militant ñu ñu maanaam ñu euh, ñu accueillir ko accueillir bu ñu sañoon nga doon ko c'est-à-dire moom ci boppam xanaa moo toog kay ci losi gu bopp boppam di xool kañ laa koy wax ak nan laa koy waxee réew mi nag souvent yu mel noonu bu ñu ci agsi damay wax ne bu ñu nekkee ñaari xaaj ñenn ñi gis ne moom waratu koo def benn dañoo bokkut ak moom langue politique wala sax faruñu ci genn langue politique mais dañoo jàpp ne dañoo war a respecté kàddu respecté ñaareelu mandat waaye ci ak ay àndandoom it am ñoo xam ne dañoo taxaw tem ne président dafa war a laajaat deuxième quinquennat ñoom noonu lañ ko tuddee war a defaat li muy voilà kon troisième ah, non deuxième quinquennat la deuxième quinquennat la euh, quinquennat yi moom deux la sept ans benn sept ans la woon ok comprend damaa bëggoon a ruube mais daloo ci non bëgguma laa ruube mais dama la ñuy wax loolu mm-hmm. ñuy wax loolu képp koo xam ne kii nekk nga ci gannaaw président de la république mm-hmm. di wax naan di ko jéem a puus naan ko defal ñetteelu mandat. Mhm. bëggoo réew mi sa intérêt la fa téye. ndax ñi ko wax tey ñoo ko doon seen xalaat ñoo ko mën nañ laa dégg yow. ñoo ko doon xeex démb. non mais man xeexuma ko woon démb. mën naa wax loolu itam ne président bu mu ko fi defee itam ñu ne kii dafa contre Macky Sall. Euh, nang diw la faral moo tax mu wax loolu. déedéet loolu may weddi. non kenn loolu may weddi sa waxi kilifa rek. non gis nga mbir mbir mu tegu ci table ji mbir mi dafa tegu teggin woo xamante mu débat bi débat bi parce que boobu ba nëgë ni nag eh, eh, ay ay eh, maanaam attaque nangam ngi nii ñuy wax ci candidature président Macky Sall man dañ dañ tootoog fii maanaam li ñuy wax nii ñun waxee nañ ko nu ne maanaam moo tax ci njëlbeen ma ne leen et puis euh, Maodo a bien fait de euh, président aussi politique la yàgg ngeen ko wax moo tax ci njëlbeen ma ne est-ce que pour président finalement amuñu par l'usure cest à a à force de parler oui, de troisième mandat moom xam nga finalement da ngay mujjee taay loolu bu demoon ba déclaré ko sax dootul doon xam nga donc est que loolu saxul sax maanaam puus wax ji puus wax ji loolu tax ñu koy def parce que day dem ba ñëpp toqi voilà maanaam fi ne dem na ba dañuy toll foo xam ne ay eh waay waxal nag loo wax baax na même waxee <laughs> wax bu ci nekk am na conséquence nag bu nee dama koy def dana am conséquence bu nee du ko def it dana am conséquence évidemment évidemment parce que mais est-ce que dayoo il y les urnes également il y aura les urnes les ñooy tranché foofu nag mën na am conséquence day am conséquence par force mais degré bi mën ta doon benn diggante euh, démb bu ko waxoon ak tey bu mais parce que Abdoulaye ba nga ko waxee tamit gars gis na la ca xew. alors euh, gis nga da nga wax léegi teg deal daal ci tuddaale président Idrissa Seck. Mm-hmm. mais man jàpp naa ne président Idrissa Seck ni mu def la képp koo xam ne kii yore nga parti politique normal mm-hmm. noonu nga war a def. soo demee ba nga xam ne léegi réew mi nga xam ne da nga faa nekk mu di ab république mm-hmm. ñu dem ba ne réew mi kat weer sangam dañoo dem ci fas yéene nañoo dem ci xëccoo ko mais président Macky Sall bi fi gars yi nekkee fii euh, di def campagne te président Macky euh, Abdoulaye nekk fii

la Idrissa Seck wax président Macky Sall na ko man xam naa ne dootuma nekkati président CSE parce que damaa bëgg a dem wuti réew mi. Hmm. ñu waxtaan kon jamono ji bu ma la déggee. oui dafa euh, euh, topp ci tànku yu mag kon Idi mu ngi ci lii ab jiite. parti Idi di wër Sénégal kon. non Idi de mës a toog. na Macky wa na Macky defoon Idrissa Seck a toog day de oustaz. Mhm. dama ne na Macky defoon. Ah, ba nit yi di coow ay dialogue ak yi ak yooyu noonu. Mhm, mhm. Idi kon moom xuus na ci kii bi. mi ngi ci loolu parce que loolu mu nekk noonu mooy un leader politique formé parti politique légalement constitué. Mhm. ñu nangul ko parti officiellement bu tudd réew mi. Mhm. am na sañ-sañu ne man mën xam nga ko mënta àndal. nam ke nekk dem ma wuti nga wuti. Mhm. loolu mooy parti politique. très bien waaye euh, boo bootu ci nit rek jëmale yomal xiyam. <laughs> très bien euh, oustaz Maodo Faye ndekki li émission nandite yi en direct sunu ay plateformes digitales YouTube Facebook ak sunu ay réseaux synchronisés Dakar n'est pas le Sénégal les sites d'information qui nous suivent ñu ngi leen di sant di leen gërëm suma xel dem ci waa Thiès Info waa ne itam waa Sénégal jaa ngeen jëfati oustaz euh, boobee jamono président. Macky Sall bi ñuy euh, conclure kii mbirum euh, dialogue national boobee euh, def déclaration boo xam ne ñu bëri danoo gis ne dafa am fu mu ko jëmale en tout cas junju na ne am na ay actes yu ñu posé ci euh, weeru juin bi acte yu mu dippee d'acte terroriste ne dafa mel ni yoo xam ne saccage yi ñu fi jot a am ak yooyu nee na euh, acte terroriste am spécialiste yu bëri en communication wax ne am nañ ay information yoo xam ne peut-être euh, génnee gunu ko officiellement ñeneen gis ne dafa am boor bu mu ko jateel boor boobu nag mhm. ñëpp ñëpp xam nañ ko loolu dafa nar a gën a taral relation yi wala finalement dafay dafay tax ñu gën a xam ne on n'était pas si informé que ça waaw xam nga xam nga état moom léeg-léeg mu am loo mu yëg loo xam ne li yow mi citoyen lambda bi doo ko yëg mhm. mën naa am seen ay renseignement police gendarmerie l'armée armée mhm. mën nañoo ba mhm. naa andi ko wax ci suuf di ko régler ndànk di ko régler ndànk ba mu jeex takk nga doog a wax nag baat ba fekk na booba euh, sawara wi gim na ba noppi mais boo ko teelee wax kenn ku nekk dafa am nu ngi koy gisee ci mois de juin bii li fi amoon nanga am am na daal na baat yoo xam ne moo terroriste ak yu dama dañ ko assimilé sax la wax dafa ne dañ ko assimilé à hmm. mooy nga nuróole ko ak loo lenn hmm. am mbir hmm. léegi nag loolu bu ko président Macky Sall waxul woon it moom mooy doomu aadama bi gën a informé ci Sénégal xëy na am na loo xam lii xam na ko te waxuñu ko am na loo xam lii tamit ñoom ñu ngi ci dëgg seen tànk donc loolu doo ci mën a xuus parce que loo ci xuus xuus xuus xuus dana am loo xam ne doo ko xam léegi nag chef de l'État aujourd'hui mmh. dafa jóg wax ne lii dootu fi amati. Mhm. parce que xëy na mbettaange am na ci wala nangam ak nangam finalement loolu amaat na. Mhm. léegi nag comme lam na woon du am. Mhm. amati amaat na. léegi lépp lu ñu mën a def ba benn dootu ci amati. kooku jar dafa war a jaral Sénégal yépp nag ñu toog waxtaanee mbir yooyu le élection yii di jëm. kenn ñu bañ koo beddi ñoom ñëpp Ousmane Sonko woo ñoom ñëpp ñu def ay élection inclusive ñëpp bokk ci ñu nag léegi nag jàmm nee na ñooy parce que nag dialogue bi. coow li coow li coow li njaw desandi naw xam xam bin parce xam ne Pastef bokku ca Ousmane Sonko ñoom bokkuñu ca d' accord c' très bien euh, waxtaan baax na am na lu ñu conclure et tout mm-hmm. mais ça reste toujours. Mm-hmm. jërëjëf Oustaz mm-hmm. Maodo mais li ngay wax ni tamit du euh, est ce que du ay gént parce que boobee jamono ngay wax loolee euh, gis nañ démb <laughs> li fi xew. Ah, ak ak ñi ñi dippee tëju Ousmane Sonko blocus. ak coalition Yewwi Askan Wi. coalition jàpp nañ ci ñu ci ñu bëri mais coalition Yewwi Askan Wi boobee justement il faut ñu waxaat ci demain xam naa bu non demain émission du am xam naa semaine prochaine incha Lat Diong teew. Mhm. coalition bi enchaîné na ay ay échec yu. Mhm. kii euh, woote woote rassemblement gars yi en fait opportunité wu. Mhm. Euh, ay rassemblement ki déplacement en fait coalition Wi ci wàllu communication dafa mel ni daanu na benn. waaw absolument foofu nag foofu moom. coalition Yewwi Askan Wi dañoo dañoo def ay erreur bon. après ah, ay erreur ay erreur yu bëree bëree bëri. parce que dafay moment yoo xam ne yi li ngay bëgg a wuti da lay wër na yow lii mënta nekk nga mm. bëgg def forcing pour def ko. Mm. su ko réglé itam conséquence yow yaa koy yanu. Mm. ce n'est pas parce que dañ dañ leen a chargé gazé leen et tout ça c'est parce que police moom police moom dafa lu dul liggéeyam mm-hmm. dañu jot ay ordre yoo xam ne dañ naan fii mm-hmm. parce que nag boo nekkee république mm-hmm. républicain par exemple nga ne yow kët man lii waroon nga koo def parce que ñoom bu ñu fal woon tey dañ bëgg ñoom loolu ko leen ko def mm. parce que donte nag blocus beeg yu demee noonu kenn àndu ci kenn d'accord ci mm. mais ñoom ñi nga xam ne ñoo jiite euh, yeewi askan wi war nañoo wut yeneen stratégie dul damay jékki-jékki dugg fii forcément dem nga fi nangam yooyu yooyu du defar dara mm. bu fekk mën nañu bàyyi force yi boobu la jaay doole boobu boo ko waxee kenn la yow tamit doo fi jàll mbëkkante boobu jaru jamono dikk loola yàlla teg ko mu jeex tàkk mais damay dem bedd baddi barrage yooyu yooyu moom vraiment dafa waaw daf ci am loo xam ne damay yaakaar ne sax léeg-léeg waxu politique lay doon ndax ñoom ñii ñëw moom jàpp ma ne sax euh, bu ñëwee danañ mën a dindi barrage bi mm-hmm. ndax yu baree bari yoo xam ne laxasu na ci mm-hmm. te bi ma gisee image yi ma gis ñu dox ba agsi it mm-hmm. ñu nuyoo taxaw di waxtaan laa ci gis ak euh, xool nan la ñuy nan la ñuy dialogue ak ak takk der yi ba mën a jàll xooli ki nga xam ne mooy seenub leader. Mm-hmm. waaye nag waxu waxu politique moom léeg-léeg état mu mu laaj jamono joo xam ne day am nooy waxe mm-hmm. ndax ñu yëg la da mm-hmm. fëgg ca kaw di fëgg ci suuf. loolu moom euh, léeg mu am ci man nag euh, li amoon ca mars bële. bi président ñëwee ne li amoon dootu amati. waxam joojee ak li mu wax bërki mu ñaari wax yooyu moo xaw a yem ci man man de su ma sañoon euh, du ko du ko waxee noonu maanaam buñ ko doon buñ ko doon même buñ ko doon xelal lu jëm ci wàllu terroriste yeeg yooyu gannaaw bi yëf yi jàllee. Hmm. Euh, ministres yi yor wàllu woowu nee nañ ubbi nañ ci ay euh, information judiciaire yoo xamante ne fas nañ ko yéene dem gëstu ji. Hmm. xooli ba xam nan lay demee yow mi kilifa gi nga xam ne man naa am sax mbir yi ci yow la war a mujj. Hmm. boo teelee joxoñ ab joxoñ day mel ne sa la ñuy xool. day mel ne euh, foofee nga joxoñ rek loo xamante ne am nañ ñuñ jàpp am ñoo xam ne dégloo déglu nañ leen am xam ne déglooguñ leen am nañ nàngam. teel a joxoñ loolu mën naa mën naa. mooy li ma wax léegi rek am na moo yoo xam ni kenn du ko. voilà mën naa naa mën naa am tuuti lu ci changé li ma jàpp ne moom lañ ci war a jàngate dëgg-dëgg mooy li amoon du fi amaat ak li am nii acte terroriste la hmm. xool li am lu koy tax di am hmm. ñu xool nan lañ koy régler bonne fois pour tous loolu mooy li nga xamante ne moo gën hmm. démb bi ma gisee waa yeewi yi génn ma gis ñoo xam ne dañu manifester après wane ne waa yeewi dañoo génn nit ñi topp ñu leen dañoo génn nit ñi taluñu leen dañoo génn ñeen nàngam dama ne loolu ci image maanaam ci ci communication yu baaxul yi la bokk ki nga xamante ne day am lu muy mettitlu moo xam mbir ma réussir na moo xam réussirul nañ jël lam doon lam doon mettitlu au sérieux jël ko jëlin woo xamante ne ni luñ mat a ba lu mat a bàyyi xel la bu baax a baax Cité Keur Gorgui lii fi am nii tey am fi maanaam loo ko dégg dégg dégg bañ cee wax politiquement da nga ci waxiwaat boo ci waxut tey da ko wax ëllëg problème la boo xam ne puus ko mu randu problème Ousmane Sonko ci boppam laay wax puus ko mu randu mën nga koo boo ci waxut tey

desal naw mm-hmm. euh, euh, ci ay information judiciaire feer nuñ ko jubalee nanga euh, mm-hmm. ci boole bu mars 2021 nest naa da ñàkkul daan ci dellu bu baax a baax vous avez très nombreux comme d'habitude à suivre ñu ngi leen sant di leen gërëm ci chat bu Sud FM ci YouTube bi en direct Sud FM seen rajo ndekki li émission nandite yi Adiya dafa bind lu am solo léegi léegi bokk na ci ñi nga xam ne ñëpp ils on réagi en direct ci chat bi euh, wax lu am solo également moom laay wër nii parce que message yi <laughs> dañuy bëri ci chat bi ah, ah xam naa ñàkkul euh, dinaa dinaa ko kiiwaat euh, dina ko retrouver boobe message bi nga xam ne amoon na solo bu baax a baax a baax ah, ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm en tout cas bon dina ñàkkul dina gisaat message boobu si je trouvais que c'était intéressant merci à vous tous d'avoir réagi en tout cas ci chat bu Sud FM seen rajo ñu ngi leen sant di leen gërëm ah voilà euh, dafa ne euh, on espère que au moins Ousmane Sonko dina dem julli ji tabaski loolu itam <laughs> laaj la <laughs> est-ce que dinañ bàyyi Ousmane Sonko mu génn julli ji tabaski am déet c'est une question waaw waaw man day man day jàpp naa ne li ma jàpp hmm. xaw ma nag luy am hmm. sama xel daal jàpp naa ne duñ ko bàyyi mu julli waaw boo def naa li koy escorté ci wu nit hmm. da mën naa indi yeneen problème te Ousmane Sonko tey ji bu ne woon la mais kuñ tënk ba mënoo doxi say soxla mënoo mané say activité politique say avocat mënu ak mënuñoo ci yow hmm. say parandoo mënuñoo accès ci yow non ah, léegi nag bu ñëwee ba tabaski ñu naan tabaski ji non non duñ ko bàyyi léegi tey nga mel ne nag non duñ ko bàyyi

C'était le vrai combat né de l'honneur, pas de la peur. Je vous le recommande, c'est Jacqueline Fatima Bokoum, mais recueil de tweets. Oustaz Maodo Faye jërëjëfati. waaw jërëjëf. Serigne Mbacke si la SMS jërëjëfati. merci à tous yi jeex na publicité yi dañoo bëri. Euh, sponsor i ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. Euh, dinañ amat yeneen jotaay oustaz. <laughs> ñu ñëwaat ah léegi suba damay bàyyi waa waa kii. Euh, waa Arafa ñu ñëw ci kii bi gannaaw suba ak gannaawaati suba gannaaw tabaski la kon ñu ñun ñëpp ñu doxante dig daje semaine prochaine incha allah merci à tous de nous avoir suivis passez une très bonne fête de Tabaski n'oubliez jamais viser la lune salut à tous et dara yàlla may nu jàmm ju mat sëpp dund bu mat sëpp ndox bu mat sëpp may nu teranga bu mat sëpp may nu jàmm yaakaar ju mat sëpp may nu wér gu wërle gu mat sëkk may nu dund gu sëkk may nu dundle sëkk yàlla defal ko ndax yomb na yàlla. Boisson Jet Set EDK ak AME ñooy ànd ak yéen seen émission ndekki li. ndekki li daal ca dëgg-dëgg mooy émission nandite yi. ndekki li émission nandite yi.